waaju ko sopp daari baax waaju ko weddi dootul baax sama turandoo waajum gërëm ngir dindi baax waayaa war na xarnu bi sëriñ baax wayam du ñuy gaañi ci laax du tulimba ay sagar di daax la du daanu fi paax kuy di seetal xarnu bi kuy di liggéey dama la gan Cheikh Isa jennay mbar moo manu gan maami sëriñ Abdou Latif jennay mbar moo man Cheikh Issa Cheikh Issa jënd mbër moo mënu gën yaram la wute naa sa gën ba mbaa ko ñaan ci xarnu bi nga ne daani gën a tuut xel mënu ko ah takk di root mbaa xalima ki daay ko ah te nu mboole xarnu bi Serigne Touba birawa sëriñ Tuba bay sëriñ Saaliw ay sama turando Seexul Xadiim Cheikh Ahmadou Bamba o mama xaamam di la wax way murid yi ñooma wa nga tawatal te bu nu say làmmiñ yow xam na bi tey jii ma wax man ba ni tëraat ngir yaa ma def interprète yaa fa bi xam-xam ñuy def sama xol ci xam na bi te bu ma na ci ñaan ngir lii ma bon tey ko ngir bëgg nga dekkal xam na bi jooy parental lanu jooy Sëriñ Tuuba baay Sëriñ Saaliw jooy parental lanu jooy Mbàkke balay sa bonu fa bul jafal ba ndefi kooy mu dalu naatal xannu bi jamono jaayi xiifa xiif lun togg bar bi ni ko foofu Cheikh Bamba nel gan gi mi neef nel gan gi mi neef mu dalu naatal xannu bi taxawlu naa yàlla Sëriñ Tuubaa naa defar suñu mbir baati nan abbaana wax balaaw biim li Muusa ndak Sëriñ Tuubaa ndak Sëriñ Tuubaa busa jarama jarama jarama jarama jarama Cheikh Ibra Fall yàlla mu sëriñ bu boole dimbali bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حفظة عازي أبيات بحروف الله بخرا واحفظ لوجهك الكريم كل من حفظت أبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لخير بولن لك فؤادي إلهي من وكل من قصد لك فان اقفز إلى غير وما بطن من المفاسد وسفيل العتن حبنيت خالا فيما كساء من في العالي والمحال مالك زمن moo tax nga silwiise am xam-xam ba tey fi la wër Seex na ni bi Seex Muntaxa gu ko raw ci waa Mbàkke ci maasam xanaa gu mu raw saa dégg ak topp ko yow Seex Muntaxa amul ci mbàcceeg bu soobee kokki ñëpp naw ci xeeti xam-xam yu wuute mufti nga yow xaabis nga alim nga jàng ak jaamu yaanu ci raw xaabis nga am nga biraaya ak wilaayatu sax nan ba dee filu na mooy nañ ci yow jàpp foo jëm na ku ñu am loo am defal ni te loo na yow man nu gindi ne loo man de sàmm bi kat nañ suur te bu ñu ruur te bu ñu ree loolu man nga ko kat see mun taxaa mbàkki ta ñoo beti mu rëy moo xam ni dolli na suñu yaakaar ci ba mu doy see mun taxaa mbàkki ta ñoo beti mu doy dannoon sëriñ Moustapha Basiru kay jëf yu rëy yi mu jëf bu toog am yaa fuus nga ñëw ni nuwif def jëf ju ji nga def Tuuba bañu non def jëf ju Tuuba fi daaru mi non fi Seex Basiiru tëddëk taawam bi ñun nga ñu non tabax jumaa boole ko ab ci ay million jébbal ko Seex Ahmadu Lamin gi ñëpp di rang ba kooku wax lim ba dooñ ci salu doogu la naw mbaa kuy bëgg maatee nga wax waxi xew waaye ku gis nan ni lii am nan la kenn du ko bañ Seex Muntaxa Mbàkke moo baax googu kaddu du dañ waaye ku gis nan ni lii nan la kenn bañ Seex Muntaxa Mbàkke moo baax googu kaddu du dañ borom xilaafa mooy Sëriñ Baara yomb la roy doonay Sëriñ Fadilo Seex Bamba cër la gu rëy risaalatun gi xam naa ko Moussa la yemal Seex Muntaxa Mbàkke mooy Aaroona moo ko dëggal yaa njëkk a yeeslu yaa wan gaañu yoon man waaw ba baat bi doon benn ngay soñaate mbiri di law yàlla na yàlla yokk say maqaama bi jaaman suma tawul xadiman wax